am nañ mbégte di fi dalal Guy Marius Sagna nekk député à l' assemblée nationale bokk groupe parlementaire Yewwi Askan Wi waaye nekk tamit secrétaire administratif euh, bu euh, FRAPP euh, di benn kuréel boo xam ne nii day yëngu si wàllum société civile yi mooy tamit si wàllum panafricanisme ak yeneen yu nu xeetoo ñoom mbégte lool di ko fi dalal ñeneen dis ñeneen yi nag dis teg France dégage honorablement li nuyu baale nga te ñuy teew la. lay fay di la gërëm ci invitation bi. Euh, jërëjëf honorable ñu ngi doon déglu euh, sànq ministre de la justice garde des sceaux euh, maître sa Tall Sall muy ñëwaat ci situation bi ñu toll jamono ji ndaxte dañoo seetlu ne am na ay limu ay détenus yoo xam ne ñu leen di génn ci kaso yi mu si doon indi ay leeral wax ne lépp loo xam ne ni am na ci ñu génne leen dafa jaar ci yoon waaye nekkul mbir la boo xam ne dafa yëngu dafa laal su wàllum politique walla su wàllum yaama neex ndax ci explication yoo xam ne ni maître Aïssata Tall Sall joxe na ko ci fànn boobu am nga ci satisfaction. maître Aïssata Tall Sall ministre de la justice. Mhm. dafa jógee ci euh, benn mouvement bu ñuy woowee euh, oser euh, ré oser. oser l'avenir oser l'avenir. Mhm. waaye fi ñu toll nii defe naa mhm. ñu ngi toll ci oser les contre-vérités. oser en fait. wax loo xam ne dëppoowul ak yoon mais enfin man li may jàpp mooy ñoom ñoo jàppoon ndaw yi. ñoo jàppoon détenu politique yi yaa ngi mm-hmm. fàttaliku d'ailleurs ñoom ñoo doon wër fu nekk ci àddina bi ne détenu politique amul mm-hmm. mais defe naa ni fu mu nekk nii képp kuy doomu Sénégal te nga ànd ak sa sago te par parloo taxulaa jóg di nga xam ne détenu politique am na lu ne fànken du ko jeex ñoo leen jàppoon mënuñu comprendre jékki-jékki rek ñu libéré euh, lu toll nii ñun euh, li ma ciy teg rek mooy xëy na encouragé leen ñu continuer ndaxte xale yooyu waruñu leen woon jàpp détenu politique yooyu waruñu leen woon jàpp waruñu woon toog benn fan ci kaso commencé nañ euh, def loo xam ne moom moo leen war moo leen waroon yàgg na nañ ko continuer ba mu mot sëkk bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yooyu ñoom ñooy détenu politique yooyu mm-hmm. constat bi mooy jeudi ak vendredi maanaam xawoon na takkar naa si mais lundi démb suma ma juum biir ndakaaru juróom lañu bàyyi tey jii dégguñu ñu ni bàyyi suñu takku ndax jàppoon ne mbir mi peut-être coow bi ko accompagné woon euh, ak ñi doon jubilé yooyu ndax jàppoon ne mbir mi mi ngi commencé resserré wu tuuti. dama jàpp ne détenu politique yi nga xam ne ñoo jot a génn seeni témoignage euh, dafa nekk ay accusations graves contre le régime du président Macky Sall. Mm-hmm. te mën na am loolu bokk na. ci lii freiné euh, tey euh, ak démb euh, ak même ajjuma bu dee jumuma mm-hmm. mm-hmm. mais surtout tey ak démb bokk na mm-hmm. ci li freiné en fait féexal bi nga xam ne commencé nañ ko féexal détenu politique yooyu mais dama jàpp ne lenn rek moo leen dese ñaaw na ba noppi mu gën a ñaaw te loolu ñaanu ma ko yàlla pour Sénégal pour askanu Sénégal ndaxte bu gënee ñaaw ça veut dire que dinañ jàppaat ñeneen dina am ay détenus politique yu toogaat kaso dinam ñoo xam ne dinañ leen faat comme ni ñu faatee Landing euh, euh, Alpha ak euh, Modou ñaaw na ba noppi mu gën a ñaaw wa ilaa ñu jàpp ne ñaaw na ba noppi waaye astut bi leen fi dese. Hmm. na rafet na rafet na rafet na rafet nag mooy. ñooñu ñu ñu jàpp muy détenu politique yi nañ leen bàyyi na rafet mooy ñi nga xam ne dañ leen takkal ay bracelet électronique ci euh, ay ay sos euh, nañ leen tekkil bracelet électronique yooyu na rafet mooy ndaw yi nga xam ne dañoo gàddaay ndax tongali bi ñu leen doon tongali di leen di tongali ba tey nañ leen bàyyi ñu ñëwaat ci réew mi te organiser élection bu jaar yoon. si ndaw yooyu nga xam ne dañoo gàddaa bokk na si ku mel ni maître Ngagne Touré bokk na si ku mel ni euh, Sadikh Top am na ñeneen ñoo xam ñëwaguñu mais ñoom ñaar ñëw si neen euh, Sénégal euh, ministre bi ne que am na ay mandat d'arrêt yoo xam ne ni lancé woon nañ ko et justice dina si def liggéeyam ndax loolu dañ si war a déggee ne que bu ñu moytuwul ñii ñibbisi boo moytuwul yoon mën na leen teg loxo. foog naa ne président Macky Sall ci boppam moo Euh, décrispation. Mhm. moo ne pacification pacifier lespace espace public l' espace politique maanaam jafe-jafe yi amoon fii te politique lal ko euh, fitna bi fi amoon te politique ko ba ñetti bakkan yooyu rot ñu boom leen fitna boobu nañ ko fay fitna boobu nañ ko bàyyi ndaxte fitna jigul kenn baaxul ci kenn te kenn du ci rëcc. Mhm. muy ñoom ñi nga xam ne ñooy teg fitna googu. suñu loos muy euh, ñun ñi nga xam ne xëy na euh, du ñun ñoo ji fitna boobu donc ba ma ba nga xam ne jàpp naa ne euh, pour une fois ci fukki at ak ñaar yi président Macky Sall def ci boppu Sénégal na def lu muy wax na wax lu muy def comme nee na pacifier l'espace politique indi waat jàmm dal ak tek ak tekkaaral Euh, pour man nañu bàyyi ne euh, dañuy tongali euh, ngañ dem ba Touré ak yeneen ndaw yu mel ni moom yoo xam ne gàddaa yoon nañ ñenn ñi en fait ñibbisi bu dee mbiru Ousmane Sonko rek naka lañ koy faagagalee ba du nekk candidat ak résistance su Pastef ak mhm. militant ak sympathisant moo taxoon ñu bëgg a jàpp dem ba Touré jàpp ñeneen ñi gàddaay nañ ko teg ci suuf te jàpp ne comme ni ma ko waxee ñaaw na ba noppi. Euh, lenn rek moo ko dese soit mu gën a ñaaw soit mu rafet pour euh, ay bés yi nga xam ne moom moo ko fi dese. si wàllum rafetal boobu sax di si ñëwaat mais am na ñaari cas te ni question yi dafa ñëwaat si lu bare bari muy euh, situation Ousmane Sonko waaye tamit Bassirou Diomaye fay te si ñaar yooyu yëpp. li mu si wax moom mooy euh, que maanaam am na ay yoon yoo xam ne nii teg na ko fii pour ku ñu war a bàyyi bu nekkee am na demande de liberté provisoire boo xam ne am na si mais bu ñu ko gàntalee après chambre d'accusation maanaam si principe généraux yi rek la yem mais waxu si lu leer nañ mi ngi wax ne daal dina étudier bu procureur yi jàppee ne war nañ mën a sàkk ñu bàyyi leen dinañ ko def ak nangam nangam mais juge yi yor dossier ñoom ñooy euh, ñoom ñooy ñoom ñooy dogal euh, mbirum Ousmane Sonko ak Diomaye yow nan nga ko jàngatee te ñu doon wax ne léegi ñu génn. dama jàpp ne euh, Ousmane Sonko ak euh, Bassirou Diomaye Diakhar euh, Faye ay détenus politiques lañu comme ni ko ñeneen nekke jamono ji ci biir kaso. Mm-hmm. dama ma teg ci ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy candidat coalition Diomaye président. Mm-hmm. ci dix-neuf candidats yi nga xam ne conseil constitutionnel mujjee na publier seen tour boo ci génnee Rose Wardini. oui tey euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy euh, menn candidat mi nga xam ne mu ngi ci biir kaso. te loolu wax dëgg yàlla xel mënu ko nangu damay fàttali ne euh, ki nga xam ne mooy Barthélemy Diaz. Mhm. nekkoon na fi nekkoon na fi kaso. Mhm. lu tax ñu génne woon ko kaso parce que dafa nekkoon ci liste élection législative. Mhm. d'accord ñu génnee ko pour mu campagne. Ah. donc loolu c'est un précédent boo xam ne ci yoon président Macky Sall war na si sukkandiku gouvernement bi war na si sukkandiku pour li nga xam ne organisation des droits de l'homme yëpp euh, ne nañ ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye war naa génn président Ousmane Sonko moom euh, waxam dootul yàgg du sori du gudd euh, ginnaaw Socrate ay téeméeri at ci ginnaaw ci réew bi ñuy woowee Grèce mhm. moom mooy ñaareelu doomu aadama bi nga xam ne dañ ko dañ ko condamné ci lu ñuy woowee corruption de la jeunesse euh, te jamono bi ñuy condamné ki nga xam ne mooy Socrate li taxoon ñu waxoon corruption de la jeunesse ndaxte da doon yee ci ndawi Grèce jamono jooju ngor fit fulla ak fayda ni ko président Macky Sall ak Pastef di ko yeewee ci askanu Sénégal romb na sax Sénégal ci réewu Afrique yëpp ngor jom fulla fayda gëm sa bopp gëm sa réew moom sa bopp moom sa réew donc loolu rek moo tax euh, ñu tëj ko donc euh, pour man ñoom ñoo war a xool li nga xam ne euh, war nañ kaa mën a def pour mën leen génnee en tout cas bu ñu téyewee Ousmane Sonko kaso injustice la bu ñu ko bàyyiwee saafara injustice la bu ñu libéré ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak yeneen détenu politique yëpp euh, maanaam justice lay doon maanaam ñu corriger saafara li nga xam ne euh, mooy nooteel bu ñu leen teg bu ñu leen bàyyiwul itam mooy wéyal nooteel loolu mooy li am donc astut bi leen dese na mooy li nga xam ne waruñu ko def te teg ko Ousmane Sonko teg ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ñoom ñoom Amidia ak yeneen détenu yëpp nañ ko teggi ci astuut bi leen desee ñu avancé bi ci des mooy ñun ñëpp xam nañ ne man yàgg naa ko wax keneen yàgg na ko wax ne euh, président Macky Sall moom sax moo ko waxal boppam da doon jël concam di ko teg ci ndodd justice xam na bu baax li mu war a def ngir génnee président Ousmane Sonko le candidat Bassirou Diomaye Diakhar fay ñoom Amidia ak ñoom seen loolu d'ailleurs la ñu commencé di def depuis ajjuma euh, bii passé ba euh, lu ëpp ñetti téeméeri ndaw jot génn li ma si yokk rek mooy ni ñu koy defee euh, biir ndakaaru nañ ko defee ci yeneen région yi nekk ci Sénégal hmm. moo xam jurbel moo xam ces moo xam moo xam Tambacounda Ziguinchor ak ak ñoom seen mënuma ñëw nag seen Seneweb te euh, du ma waxaat ndaxte wax naa ko ay yoon i yoon dama koy waxaat mm-hmm. fii itam exprimer toute ma solidarité à l'endroit euh, de sama jigéen euh, soxna ab sa Anne mm-hmm. mi nga xam ne dañ ko violenté dañ ko dóor ndax lan da doon def liggéeyam ndax lan dafa sol yére bu ñu bind journaliste bu ñu bind presse d' accord euh, bugguñu journalistes yi wane li nga xam ne loolu moo amoon ci mbedd Dakar yi ñu dóor ko dóor ko dóor ko ba mu xam ñu sànni ko ci mbedd bi dama koy ñaawluwaat fii encore une fois parce que ñaawlu naa ko ay yoon ki yoon di ñaawluwaat kàddu ki nga xam ne moom mooy ministre de la justice di jigéen nekk un ministre de la justice mm-hmm. benn citoyen quel que soit son sexe victime d'injustice de violence de barbarie sauvage policière ñu naan déet mu nekk jigéen yow nga mun toog conférence de presse ne yow euh, li nga gis Euh, déggoo lii déggoo. en fait euh, ak ñoom seen donc euh, mooy li may faral di wax. Mm. gouvernement bi ci boppam day faral di jox ay permis de tuer ay permis de violenter ay permis dóor noot ñi nga xam ne ñoom ñooy citoyen sénégalais te ku dem ba nekk ministre de la justice da ngaa war a exprimer solidarité ci lii dal ki nga xam ne moom mooy soxna Absa Anne. est-ce que yéen au niveau de jomaay président la coalition Diomaye président wala.